histoire boobu moom la ñuy alxuraan di nettali alxuraan nee na fàttaliku leen isqaala ba waxee kan moo wax muusa muusa kan la wax li ahlihi ñihal ñoñam ñooñ nag buñ ko waxee mooy jabaram fàttaliku leen muusa ba muy retourné di ñibbisi ñëw ba ci yoon ñi réer xamatuñ yoon bi ndax yoon boo gëj 10 ans booy defaat retour buñ la buñ la orienté wul mën nga réer musaa xamatul yoon bi lëndam na boole kook taw mu seen benn safara mu wax jabaram na ko toogal fii xaar ma ma dem ca safara wa su ma demee mën naa faa fekk ku ñu war a mën a wan yoon ku ñu war a mën a wan yoon ku ñu gindi bu ma ñëwee ci safara wa dinaa fa fekk ku ma gindi bu ma fa fekkut ku ma gindi ma jël ci safara wi indi defalal la nga jaar xoolal intention bi Moussa amoon bi muy dem daf na ko maa ngi dem mën naa ma fekk ca safara wa ku ñu mën a teg ci yoon su ma fa fekkul loolu ma indil la ci ñi jaaru ba gis nga gindi googu mu defoon ci xolam ne su ma demee mën naa am ma fekk fa ku ma gindi ba mu demee fa la ko yàlla gindee jox ko nubuwa ndekeen safara woowu mu demoon safara la woo xam ne bu yàlla barkeel la xam nga safara bu yàlla barkeel mooy safara woo xam ne danga dem jële fa nubuwa kon boobu safara xam nga ne yàlla barkeel na ko de safara Muusa woowu yàlla barkeel na ko moo tax alxuraan di nettali ne isqaala ba waxee Muusa Muusa li ahlihi ñeel ñoñam na leen inni naka man kat anastu séen naa séen mooy loo xamante ni séen bu sori moom lañuy wax maa ngi séen waaye bu doon gis la comme man ak yow maa ngi lay gis waaye boo séenee dara te xàmmewoo ko loolu la alxuraan di wax ne ini anastu maa ngi séen mooy gis-gis bu sori maa ngi séen naaran safara sa aatikum minha bi xabarin maa ngi séen naa safara maa ngi cay dem su ma demee ca safara wa sa aatikum minha bi xabarin mën naa fa fekk nit ma laaj ko yoon wi waaw mën naa fa fekk nit ma laaj ko yoon wi boo gisee arab yi ñu daan taal safara guddi surtout ñu dëkkaan ci kaw montagne yi arab dañu amoon benn aada ku ñàkk ci xur yi ngay dëkk ku am yaay dëkk ci kaw montagne bu guddee nga taal safara pour ku la gis jaar fa pour nga berndeel ko ndax ñoom tiraanga dafa yàgg ci ñoom kon ñoom noonu lañ daan def moo taxoon koo gisaan safara rek dangay jàpp ne boo fa demee rek mën nga fa am tiraanga wala nga am fa information moo tax mu ne sa aatikum min ha bi xabarin bu ma demee ma laajte fa information ci yoon wi ndax ñun xamatuñ fan lañ jëm waaw te ku réer da ngay laaj bu fekkee ne fekkumu fa nit aw aatiikum walla ma indi bi sihaa bi xabasin ci jumu safara ma jël te tibb ci safara bi indi kon Moussa bi muy dem ci safara bi ñaari intention moo taxoon ku ko wan yoon moo tax bi mu demee yàlla wan ko yoon intention boobu moo tax bi mu demee yàlla wan ko yoon liñ ci mën a jàngee nag bari na loolu moo lay xamal ne luy rey rek góor la war a njëkk a rey waaw luy rey góor la war a njëkk rey ndax góor mooy lijjanti góor mooy tës-tësi waaw góor moom lañu war a jiital ci lépp loo xamante ni ci lijjanti la loolu moo dox diggante Moussa ak ki nga xamante ni mooy soxnaam tey bu nekkoon lu doon reyee moom lay rey bu ko defee soxna si tim dégg ndigalam trop demul daayul te nee diggante bi muusaa demee ak bi muy dellusiwaat nee nañ yàgg na ndax diggante boobu wax na fa ak sànniwante na ak yàlla ay kàddu yu bari ñu ne diggante boobu yàgg na ndax muusaa dafa dem ba wax ji mu doon wax ak yàlla ni mu neexee mu fàtte ay nitam moom demoon na ba face to face bi mu doon def ak borom bi di wax mu koy tontu dafa neex xam nga. waaw di wax yàlla di la tontu dafa neex Moussa dafa dem ba dafa fàtte ay nitam moo tax ñu ne jabar ji toog na fa diir bu yàgg waaw moo tax mu ne aw aatikum bi sihabil xabasin bi sihabil xabasin ma indil leen fa jum boo xamante ni danañ ci niitu mooy jumu safara laalakum amaan na yéen bu ko defee tastalu na ngeen mën a jaaru seet na trop su ma fa amee safara su ma ñëwee ngeen jaaru jaaru bi mooy lan mooy su ma demee su ma fa jëlee njëriñ su ma ñëwee ñu jëriñoo moo tax ku jógee ci nit yàlla rek boo delloo ci sa famille rek sa famille am nañ am nañ retour bu baax waaw am nañ yóbbal bu baax moo tax moom it bi mu ñëwee wax dëgg yàlla ay nitam jaaru nañ te mooy niitu nañ daal moo tax mu ne laxalakum amaan na yéen tastalu na ngeen mën a jaaru falama jaa ba mu ñëwee ba ca safaraw bi Moussa ñëwee ba ci safaraw yi nuudi ya wooyef na ko mu dégg turam mu tiit imaginer nooy ñëwee fekk safara wuy tàkk nga ñëw ba ci safara yu ñu ne la yow diw moo tax ma ne falamaa jaa aha nuudiya wooweef na ko waaye xamul lu ko woow moo tax mu ne nuudiya wooweef na ko an buurika yàlla moo barkeel safara wu yàlla moo ko barkeel safara wuy wax xam nga ne safara wu barke moo tax mu ne an buurika yàlla moo barkeel man fi naari la nekk sa safaraw te ka fa nekk yàlla moo fa nekk moo tax mu ne an buuri ka man fi naar wa man xawlaxaa ak la wër safara wa yëpp dafa barke safara fan la saam la saam mooy saam fi ñuy wax saam moo tax foofu yëpp yàlla def ko barkeel suuf yooyu la fa nekk ci pétrole ci or ci diamant yàlla moo ne man maa barkeel li ko wër li wër foofu yëpp saam jàpp foofu ba siri yooyu yëpp yàlla ne na man maa ko barkeel moo tax mu ne an buurika man fi naari man fi naari wa man hawlaha wa man hawlaha yàlla nee na maa fa wàccee barke waaw moo tax yàlla wàccee barke foofu ci tund wu yëpp wa subhaanallaahi seel la ñaan la yàlla yàlla daal rabbul aalamiina mooy borom mbindéef yi bàkk na boppam de subhanallah rabbul alamin yàlla mooy borom mbindéef Muusa bi muy ñëw ci bi muy ñëw ci safara bi mu ngi téye benn yet bi mu ñëwee safara wi na ko indi ana allah man maa yàlla loolu la ko safara wax yaa Muusa mu ne naa mu ne ko indi ana allah man maa mu ngi téye aw yetam borom bi ne ko yaa Muusa mu ne ko naam mu ne ko innahu naka lay mbir tey mbir li xew dëgg-dëgg mu ne ko naam mu ne ko ana allah man maa yàlla man maay yàlla al asis ku tedd te not ci nguuram mooy lu ma bëgg a def def ko al mooy ki tedd ba pare te ci nguuram waaye alxakim na nga bàyyi xel ne maay ki xereñ Moussa lan la ci mën a jàngale xereñam mooy xoolal histoire Moussa fi mu déparé nga xam ne ku juddu at bi muusa juddu ku juddu nekk góor ñi ray la yàlla ci xereñam fexe ba Moussa juddu te reyuñu yàlla ci xariñam noonu muusa yar muusa te bant mosu koo xusi moo tax bu ko yàlla ne ko alxasiis maay ku tedd te not ci nguuram alxakim maay ko xereñ ci dina xalaat lu bëri bismillahi rahmani rahim wadduha wallayli idaa saja ولسوف يعطيك ربك